salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet.com comme comme ni ñu koy defee jamono ji ñu ngi ci événement événement bu rëy nekk événement tabasi ñu ngi ci veye bi su ma juumul benn jour ci des après ñu tabaski dañuy def lu dul dugg laaj gars yi fii nii gars yi doon veille di yar xar laaj leen tey jii lan la ñu mën a wax ci xar yi wax ñu aussi prix xar yi fu ñu toll ba xam xar yi mi ngi seer ba léegi waaw boo xam mi ngi wàññeeku comme ni ñu ko daan defee tumaan duñu def lu dugg laaj gars yi ñu laaj ñoom nan la ñuy dundee tabaski bi incha allah. sëñ bi ñu gis ne événement bi événement tabaski ñu ngi ci veille bi yaakaar naa instant yi subaa ci des xaw ma ginnaaw suba waaw incha allah ñooy laaj na nga doon dundee ci ci xar yi ak veille bi na la doon méttee na ngeen ko doon yëgee ak yan toolam ngeen ci doon am. di sant yàlla rek ndax euh, comme commencé woon nañ ko ci ar bisimilah rahmaani jeex sant yàlla quoi ndax commencement bi méttee woon trop commencé da dem ay ñaari nit ñoo la fi toog di rafetlu wutali ñett mais ren moom yàlla ñëw dimbali suñu gars yi ren ñëw toog di ñu jàppale ci veille bi quoi. waaw commencement bi moom méttoon quoi mais instant bi moom ñu ngi sant yàlla bu baax a baax mais euh, waaw waaye instant moom sant instant yi moom xar yi moom macha allah wàññeeku na bu baax instant yi est sa prix xar fan la toll ak ak fan la gaari ça dépend ci xar yi nga bëgg ba ba ba cinq cent waaw léegi yi foofu ngeen ah léegi ba instant yi léegi foofu ngeen taxawee waaw instant bi ñoo instant moom xam naa ne moom ku ñëw moom fii moom xanaa déwén mais du ren bu sow yàlla saa suñu xar moom macha allah jeex na quoi. jeex na quoi saa yu gars yi gars yi war a ñëw jël seen i seen i xar quoi ndax dañoo am na ñoo jënd bàyyi fi pour tëb si quoi ñëw jël si ko. en tant que éleveur lan ngay wax gars yi vee war a yor xar war ko mën a jaay lu yomb mais dañ ciy jéem a jël di ci bëgg a am lu seer loolu nan nga ko gisee en tant que éleveur. non non gars yi c'est que xar bi da ngay da ngay yar pare mais doo ci am doro quoi saa yu xar moom amul rek moo ci dugal ndax da nga jënd xar loo xamante ni yow leer na leer yaa boo ko jaay doo ci am 20 000 wala 30 000 comprendre nga mais kii rek moo ci dugal amour ak bëgg xar quoi mais xare moom wax dëgg yàlla gars yi amuñu dara tey boo leen di wax tey lan nga leen en tant que éleveur yi yor seen xay dëgg ñu gën a góorgóor rek xam ne affaire moom ko quoi c'est ça travail kii fay ku liggéey ku ne fay ko quoi waaw metti na méttiwul ndax ñun ñoo am amour bi quoi di soo xoolee ne ñun lu ñuy dundee rek daanaka ñun amul duñ amati bénéfice ndax ñun gàtt kaa gàtt journée dinañ lekk journée 5000 guddi gi reer rek dinañ lekk 5000 ak reer 5000 est-ce que ngeen ci mën a génn waaw sant yàlla sant yàlla dinañ ci génn duñ ci génn waaw xaalis bu dajaloo daal dinañ ko am mais soo xoolee daal loolu nga ci am mais doo ci am dara xaalis bu dajaloo ndax ñi fi ñëw di la jàppale suñ paree dinga leen neexal di nga leen jox dara ndax say xarit ñoo fi ñëw fayoo leen ñoo fi ñëw di la jàppale te yàlla ndax ndax yaa mën nañoo jàpp loolu amul bu la mais nekkul xaalis bi ngeen ciy wut non la ak xarit ndax samay xarit leen ñoo ñëw di ma jàppale ñoo ñëw di ma jàppale aw ma seen fay quoi ñoo ñëw di ma jàppale loolu daal moo ci nekk ni mais xaalis bu dajaloo daal nga cee am. prix xar yi fan la tool prix yi ñun moom commencé woon nañ soixante quinze mille ba xaru deux cent cinquante mille ndax soo xoolee gétt gi xar yi fi nekk nii bari na mais maanaam yëpp jeex na jënd nañ ko ñoo ngi sant suñu borom baax jënd nañ ko dañoo teeg nii xaar seen borom ñëw pour ñu libérer leen ko mais alhamdulilah daal xar yëpp jeex na fi. mais aussi tamit ñu gis ni éleveurs yi des fois dañuy jël benn xar boo xam ne presque soixante mille lañ koy jaayee bëgg cee jaayee ay cent trente et lan nga leen di wax. ah ñun de loolu fekkuñ si ñun moom tout à teew la ñu rek bénéfice lu mu gën a tuuti moo ñu ëppal njëriñ moo gën ñuy di xaar loo xam ne gisuñu ko ñun daal tout à teew la ñu suñ ci amee bénéfice dàq ci vingt cinq mille trente mille dañ koy jël xaar xaaruñu ci lu bari quoi. mais moom wax dëgg yàlla ku ko wax ak ku ko waxul xar yi métti nañ dëgg yàlla boo seetloo la majeure partie des personnes léegi jënatul xaruñ coogal. te tabaski dafa dafa toll foo xam ne instant bii nii ku ci nekk ak sa poos nga war a mën a demee xaru yar yi dafa metti te du ñëpp mën a am xaru yar kaay nag muy commencé ci famille yi yii nii nii amuur kese la amuur kese kese kase kese mais du bénéfice booy récolté dix mille francs wala vingt mille francs da nga am amuur rek di génnee di yar na xamee nañ ko ba pare ren moom wax dëgg yàlla affaire yi xaw na métti métti na trop. est-ce que doon am problème comme ngeen jël xar teg ko fii war ko jox ngooñ mi lekk ko jox mi naan est-ce que doon problème boobu dañ koy am mais loogi lépp loo gis ci na bi organisation la laaj na xarit dañ koy dundal at te duñ ci sonn des fois des fois tamit dund bi daf ñuy sonal quoi essayer comprendre baa li ma explique bu desoon ci xaru coggali kase kase kase kase opération mun na neex jàpp ni kon coggali moo gën a yomb opéré moo gën a fuuf mais léegi gars yi ñoo taamu xaru yar yi loolu mooy problème bi te xaru yar wax dëgg yàlla doo jël sa benn xar jëndee ko cent mille exemple di ko dundal at bu ko jaayee cent mille ay xaru ñaar naa xaru cent cinquante mille xaru cent trente cinq bi ma mujjee jaay ne Ama Balde maa ko jaayee deux cent mille waaw affaire daal moom wax dëgg yàlla ku ne tabaski selon ak sa poos réew mi dina neex waaw wax dëgg yàlla te ministre bi tamit nañu dimbali ngir jëmmi Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun sonn nañ daf ñuy faussé chaque instant duñu xam na xar ci lan la leen duñu xam na xar day am duñu xam na xar du am dañuy jékki-jékki ñu ne xar day tuuru ñu duñ ci dara dañuy jékki-jékki ñu ne xar du tuuru. instant yi gars yi nee xar yi commencé nañoo tuuru. xar yi tuuru na carrément lu waay am instant bii di nga am xar xar bu ndaw bii bii ngay gis nii cacambere bii maa ngi ko jaay quatre-vingt mille kon xar am na macha allah daal ren daal gain xam naa ne instant bi nii. waa ana ala dominoo ba pare quoi mais ñun suñu côté moom si wàllu xar yar yi xaw na métti quoi. ndax gars yi dañ lay proposer prix yoo xam ne danañ fekk ne xaru coggal la ñuy jënd te or ko tel n'est pas le cas mais yàlla na yàlla def jàmm daal. ñu lay jaajëfal Kadira. jaajëfal te maa leen di jaajëfal bu baax a baax. wéyeen waa Dakar Net di leen jaajëfal di ñaan tele bi site internet bi yàlla doon ay tele télé télé télé ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yow it ma lay encouragé bu baax mon frère ak sama cameraman. waaw non instant yi moom Sénégal ku na xam ne fi mu toll ñu ngi xaar nag mais des na nam doon demee demee ko quoi. ñu ngi sant yàlla nag bu baax am na ñuy jënd di fi bàyyi am na ñoo xam ne ñuy jënd yóbbu mais tamit ba tey li ñu doon gis ci tabaski gisaguñ ko quoi parce que nag dëkk moo toll foofu actuellement looloo tax ñu ngi xaar. xar yi moo seer wala client yi ñoo nangu. xar yi seer nañ mais tamit dëkk bi amul xaalis parce que boo xoolee prix bi abordable na li nga mën a li nga mën a am daaw moom ngay am ren rek ci prix mais dëkk bi xaalis bi moo génn nu mu war a génne boo xoolee problème bi foofu la parce que ñi nga doon gis ñu jënd xaru cent cinquante mille deux cent mille léegi bu ñu ñëwee xaru cent mille wala quatre-vingt-dix mille lañ lay wax loolu boo ko xoolee di nga xam ne xaalis amul si dëkk bi parce que bu xaalis amoon nañ doon jënd dañ koy yokk mais duñ ko wàññi ñun foofu mooy suñu problème rek. loolu la mooy seen problème mais mais mais question xar yi war a des nii te te te jaragul loolu baaru def benn problème après wala yaakaar ngeen ne dina jar. mais bul fàtte ne tabaski ñetti fan la de demi final final la waaw ñu ngi xaar ba tey am nañ yaakaar bu baax a baax ne fii ak suba ci kàttanu yàlla mën na changer. parce que tout le temps moom mun na changer comme mun na dem ba suba client yi song njënd mi parce que am ñoo xam ne amuñu fu ñu def seen xar loolu tamit il faut ñuy di ko sóoraale am ñoo xam ne bëgg nañ jënd mais amuñu fu ñu def xar jënd tey sa biir kër nga yóbbu ko ñu jël koo lay demee noonu moo tax dañuy préféré bàyyi ñoom bañ ñu suba la julli ñu soog a ñëw tey client yi song nañ jaral seeraas ak fii boo xoolee client yi ñuy jënd peut-être demee bu demee noonu xar mun na bañ a des noo xam nga cadre boobu moom dafay nekk ñaari ñaari côté boo xoolee élevage dafa nekk loo xam ne dafa doy waar am na ñoo xam dañoo xamul dañuy bëgg a jënd xar ay quarante mille cinquante mille mbote yar ko pour déwén tëbaski déwén tamit bu ñu ci bëggee teg yenn prix yi te ñun ñi amuñu loolu day préféré da ngay préféré delloowaat sa xar te loolu jar ko mais bu dee côté cent bi nag ci ay côté laadum yooy yooyu kooku moom mënul jaay sa xaru deux cent mille bu jaayee xaru deux cent mille perte na kuy bu ko jaayee bu ko jaayee lu ko ëpp cinq cent mille day perte mais bu dee yow mi jënd ay mbote quarante mille quarante mille après tëbaski boo ko yóbbu ba déwén buñ la fayee deux cent deux cent cinquante da nga war a jaay. waa waaw amour rek parce que xar moom amour la rek daanaka moo ñu ci dugal daal mais bu dee daanaka coono yi ñu ci daj sax doo ko ci am mais waslu ak dëkkandoo ak amour moo ñu ci dugal quoi à part sport lii lañ am comme ambition à part suñu métier lii ñu am comme ambition waaw ni ci yàgg liggéey quoi. si tamit ñu gis ne ñu ngi ci veille ñu ngi ci veille tabaski xar yi seer na ñii ñu ngi naan xar am na ñii naan ah, xar amul yéen ngeen veille presque un mois di leen laaj yéen nan ngeen dundee veille neex na wala wala wala nu mu fa demee. waaw veille si xar moom neex na neexul parce que amul daal boo ko jëndalee ci xar yaakaar naa doo ci coono bu ci amee sax doo ko yëg parce que da ngay demee te ak euh, ak amul daal parce que parce que ni la yàlla di natoo ci mala yi loolu mooy tax maanaam lii dañ koy bëgg chaque année. maanaam di veillé ci xar yi di dund événement bi di di waslu àq ci dëkkandoo yi nga xam ne yàgg nga leen jaay xar ñoom fii lañ tàmm jëndee parce que dañuy jënd sax am na ñoo xam ne amuñu fi ñu denc mais dañuy jënd bàyyi fi ay 15 jours ñu nekk fi di veillé ci loolu pour mën a xam nga lépp jaar yoon daal. ngeen dundee teefi xar presque un mois di jënd ngooñ di jënd di jënd ndox est ce que li jaay après di ngeen ko am à 100 pour cent. waaw à 100 pour cent moom doo ko am ndax nit buy def dara moom il mu am ci dara ak li am sax daanaka sax des fois sa xaalis sax du génn mais danga koy def ngir rek loo xam ne yàgg na nga am amour bi di ci liggéey xam nga des fois am na ñoo xam ne sax dañuy ñëw li nga jëndee sax nga di joxe mais danga koy def ndax feet bi pour ñun ñëpp la ku nekk rek loo mën a